fi ñew tay ci département bu Thiès commune bu Tassette pour installer bureau convergence des éleveurs pour l'émergence bu département de Thiès euh, di fi wara samp bureau bi euh assemblée générale bi amna na ba pare fokk bureau national bi ñew dëggal lolu ci biiru département bi tan nak commune Tasset Tassette maire bu Tassette di directeur bu PNDL mom la nuit parrainé Eh, journée bi moom la ko waa pare ne moo tax ñu tànn aussi commune bu taset loolu moo waral suñu tànk fii ci biiru Tassette. Euh, lan moo fas yéene tey tolluwaayu euh, sàmm gi ndax tey jii am ngeen beneen taxawaay bu ngeen ci war a yokk xam nga kuréel gi dañ ko taxawal pour euh, taxawu sàmm yi d'abord waaye taxawu président de la république ci politique ci biir réew mi. lépp lu jëm ci wàllu càmm maanaam lu état bi yëkkati mu jëm ci wàllu càmm am na ministre boo xam ne mooy ministre de l'élevage ñu ngi koy saluer au passage euh, waaye ñun tamit ñun ñooy gën a jege sàmm yi ndax ay sàmm lañ euh, buñ ne sàmm nag ñëpp ko bokk maanaam métier la euh, naar yi dañ koy def olof yi dañ koy def séeréer yi dañ koy def dañuy yaakaar ne nag bu doon jàkk xëy na pël mooy doon maam bi mais suñu mébét mooy ànd ak président gunge ko ci programme am waaye fexe ba sàmm yi aussi jot li leen warloo ak état bi xam nañ ne mu ngi ciy def ay jéego yu bari waaye aussi xam ngeen ne fii ci région bu Thiès sàmm xaw na fi néew doole ndax espace bi ñu war a sàmmee dafa nekk lu xam ne dafa xaw a tumuranke loolu nag euh, dañ ciy waxtaan ak maire yi waxtaan ak président département yi waaye waxtaan ak élus national yi ak organisation éleveurs yi du yàgg dara dinañ ci def ay atelier yoo xam ne dañuy euh, euh, jël ci taataan ci seen i xalaat tënk ko ndax xam nga ne journée nationale de l'élevage vingt neuf vingt huit novembre lañ ko jàpp fële ci département bu Mbacké waaye dañu bëgg a tënk li nga xam ne mooy jafe-jafe fii ci région de Thiès rawatina département bu Thiès jëbbal ko président laata muy dem Mbacké ndax mu indi ci solution ngir jox sàmm yi aussi fu ñu war a euh, mën a sàmmee ndax ku kam jur àll la laajte ku xam jur aussi euh, euh, bu duggee ci toolu jàmbur coow lay indi kon war nañu ratakal diggante sàmm yi aussi ak béykat yi loolu mooy tànku convergence des éleveurs am na volet politique waaye am am na volet développement muy jàppale suñu mbokk sàmm yi ku ci nekk li la warloo ak état bi nga mun ci jot fekk du am jafe-jafe. jafe-jafe suuf si fi la nekk ak euh, diggan seen diggante ak euh, béykat yi waaye tamit jafe-jafe càccum jur gi euh, boo xoolee fii ñu bari bu ñuy tëdd dañuy jàpp seen jur gi yeew ko boo wala nga dugal ko ci sa biiru kër wala ñenn ñi sax séeréer yi dugal ko ba ci seen biir néeg yi loolu yëpp jafe-jafe eh, sàcc yi maanaam ñi nga xam ne dañuy sàcc te ci biir nit ñi lañu nekk loolu nag ñun ñi nga xam ne dañoo dëkk ak sàcc yi ñun ñoo ci war a eh, eh, sensibiliser nit ñi jàppale ci sécurité publique bi ngir ñu mën a jote ci ñooñu ndax sàcc fu mu mënta dëkk nit ñi xam nañ ñan ñooy sàcc ñan ñooy rawale lu ci ëpp nag ay ay séeréer lañu bon kon séeréer yi buñ ci jubloo bu baax rek xëy na buñ leen wonee ku nekk def ci ñun organisation aussi dañ ci am part de responsabilité kon dañ ci war a taxaw ku nekk def ci li la war jàpp nañ ni yooyu jafe-jafe ñun ñëpp buñ ci jàppee rek euh, dana euh, gën a euh, jëm ci kanam incha allahu rabbi xam nga commission bi doon saytu wàllu criminalisation vol de bétail macha allah sax suma benn gàmmu séeréer moo ci nekkoon waaye député yi ñoo ci def jéego bu am solo waaye fàttali nag proposition loi bi. président moko proposé assemblée nationale té xam nga né député amna droit def proposition loi way président ci bopam mom mo proposé ni criminaliser vol de bétail donc nak lolu def nañ ko ba président promulguer loi bobu li ci des kay ñun ñuy signaler sàcc yi ndax euh, nit ki aussi buñu défé loi war ko mëna appliquer mais Euh, bu fekkente ne jàpp nga sàcc bi ñeneen ñi ñëw ne doomu diw la bu ko signalé wala bu demee tribunal ñi dajale ay alal dem gis euh, ñi yore wàllu atte loolu yëpp dafa laaj ay waxtaan yu xóot waxtaan ci ak procureur yi président tribunal yi commandement territorial waaye organisation éleveurs yi waaye chef de village yi ak bokk moomeel yi ku ci nekk def ci li war ngir ñu war a wone sàmm yi ndax euh, càccum jur war a mun a jógee ci Sénégal ndax euh, loolu dafay wàññi économique réew mi. Euh, président nemmeeku na jàppale président Macky Sall même deuxième mandat bi. Mhm. da ngeen ko ko diggoon jàppale ngeen mhm. ñun convergence des éleveurs. Euh, dañoo façon yéene jàppale président laata muy nekk président de la république mu nekk président de la république premier mandat ñu lancé benn appel ne ñun dañuy def li ñuy wax kartal ci gootal en pulaar maanaam benn carte la ñuy def ñun éleveurs yi mooy président Macky Sall moom moom carte boobu ba pare ñi dajale suñu caution ay nag ñu jaay leen mu nekk cinquante millions ñu fay caution président de la république kon dugguñ ci troisième mandat ndax ñu ngi toll ci six mois bi ñu installé président officiellement ak léegi ci trois ci six mois la war a toll kon euh, jàpp naa ne wax waxu troisième mandat euh, teel na dugguñ ci waaye lii ñu wér te wóor mooy président de la république ñun dañ koy gunge ci programme mam bi nga xam ne def ko nas pour deux mille trente cinq loolu nag nekkul ne président rek moo fi nekk donc président dafa am équipe. dafa am écrit boo xam ne moo gën a rëy ci écrit Sénégal yi ndax mooy Benno Bokk Yaakaar boo pare mu yor parti boo xam ne aussi am na ay kàngam yu mag yi ci nekk yoo xam ne ku ci nekk mun na euh, jiite réew mi tey bu ci yàlla ànde kon waxu troisième mandat àggaguñ ci mais ñu ngi gannaaw président de la république ci nu mu ko buggee ak fu mu ko buggee ak saa yu ko buggee. jaaraama oto

directeur pndl donc non euh, wallodirde de aynaɓe ɓe joƴƴinen ɗo cappata ka coordonnateur départemental convergence des éleveurs donc wadde mbiɗen Ardedo, arde ɗo won hollude de en Badi installé officiellement bureau ça so allah jaaɓi kadi ma en ligue hen e kala ko woni caɗele gaynaka ɗo e der département Thiès, et région de Thiès, ma en de hen ballodiren hen kalden hen jaaden hen tongen Dum foof force allah jaaɓi dokken président de la république Hademen men des journée nationale l' élevage o heɓa ɗum o waɗa hen ko foti wat ko so allah jaaɓi allahuma salli ala seydina ceese e e hakkude aynaɓe remoɓe jiɗɗen hen ko jaam saabu aynaɓeɓe kamɓe goni remoɓe remoɓeɓe kamɓe goni aynaɓe wadde noon jaam cohluɗen hen jaam jiɗɗen hen namdi noon ko sensibilisation lappi mbaɗe e, yimɓe ndena jawdi mabɓe ay remoɓeɓe aussi ndena guese mabɓe wasi caɗele mbaɗi aussi ɓe jooɗoɓe jewtida ɓe nanadira ɓe pamadira par ce que mabɓe jiidi yumma e baba